saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa prolongation coow la amoon keroog ci diggante ñàkk jëriñoo ak Alioune Seye 2 tey le premier tigre de Fass Mbaye Gueye moo génn ci sunu lamb ca xët wu njëkk ba wax na mu gisee problème boobee Mbaye Gueye tiir la sonnette d'alarme loolee la journal bi xëy bind moom père Mbaye Gueye la mu xamle mooy ba ma gisee kuyey naaw saisey naaw barrière ya di naaw dama dar sama bopp ne lamb ja yàqu na man Mbaye Gueye premier tigre de Fass daal sunu lamb ji moom nee nañ mes ne menteng xaalis amatul te xaalis yi moo bari danañ ane balance la jiili bu wasaare wax ca lay dee tigre démb ca moom la Père Mbaye Gueye xëy dëggal ci journal sunu lamb arène nationale chinois dañ koo tabax ci seeni jikko waaye tabaxuñ ko ci jikkoy sénégalais yi l'arène nationale est construite aux normes chinoises loolee la Père Mbaye xamle waaye li am ba des mooy Aline Seyde ak ñàkk jëriñu tilimal nañ daru lamb ji waaye Aline Seyde moom warutoon a riposte bay xeex ñàkk jëriñu moom it kenn tey mbooloo gi la mu xamle mooy victime la xaw ma li xew yëguma li xew damaa jékki gis ay coup di naaw damaa seen Alioune Seye muy ñëw ak ab baa ma xam ne ci sama bopp bi la ko nar a teg ma rawale ji sama a am ngi doon négocier ay combat te sanctionné nga écrit bi yëpp mooy dal ci saison balance ñu ne déeta waaye nga dellu si waat dal ci 6 mois de suspension Alioune Seye 2 li ko dal ku ne dafa sedd danga caategul sa loxo nekk ci defar rek dafa metti waxuma laa nga teg ci ñaari at yoo xam ne bëre woo troisième année ba nga dellu siwaat ngir rattraper li nga weesu far ñu fëgg la six loolee moo waral sunu lamb ne la chance ne sourit pas à Alioune Seye 2 ba ñu ko laajee ci suspension bala mu xam ne mooy mënuma caa àddu jotuma notification buy wone ne aj nañ ma six mois sama manager woowu ma waxu ci dara bu ma demee nag ba xam ne suspension bi am na ma nangu ko rek te def leen yoon may ñoom waa CNG def nañ ko ba mu mat sëkk mbooleem ñaar fukki mbër yi doon ku ci jot sa reliquat démb ca talaata ja lañ a seen wecceet faji manager sax dañ doon faral di def saa talaata jotee ñu dem CNG waaye démb kenn jaaru fa mel nam Cheikh moo fa jaar te dafa ñëwoon pour régulariser combat foofee la journal bi jaar xamal ñu ne Kaw Cissé bu Dalifor ak Concorde bu Kër Mbay Fall mujjee nañ koo taxawal bile combat taxaw na bëree ca des abooy ak fils de Zallo yi taxawal nañ ko fils de Zallo recours ma mu dugal ca digganteem ak caatu ngéwél xaaru sax mu jàpp amaat na beneen combat digganteem Moussa Wade bu Dakar yóbbu 650 000 francs ca poids lourd ya fanweeri mbër a juróom-ñaara nga fa woon mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Ibou Ndiaye bu Diofior ak Modou Faye ñu gën koo xam ci ordinateur Libidor bu Dakar ak Gora Sock ñu nga fa woon waaye foofee Ibrahima Ndiaye bu Diofior moo daan Modou Faye ordinateur en demi-finale Libidor ak Ibrahima Ndiaye tase finale Libidor foqati mbir ma ca loxoom moom Libidor la gone yee doon a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox